doon daje tey ak comité bi nga xamante ne banqaas bi nga ne mooy ànd ci taxawal la nga xamante ne mooy Jeux olympiques yi maanaam ci wàllu tàggat yaram yi nga xamante ne war nañ ko def ci Ndakaaru fekk 2026. beneen pàcc biit mooy lan lañ ci war a demee ci naka lañ ci demee ci wàllu banqaas am na yu bari yu ñu war a defar ci commune Médina ci commune Golf ci commune Yoff ak yu ni mel ba Saly ba Diamniadio ndax ñu mën a dalal ñi nga xamante ne mooy képp kuy tàggat sa yaram ci àdduna bi ngay ndaw. fii ci Sénégal donc loolu it vraiment muy lu ñuy rafetlu ndax euh, def nañ ko ci diisoo def nañ ko ci déggoo ak it euh, ci waxtaan ba lépp lu ci war ci wàllu taxawaay gox goxaan yi war ko am am na ko. Euh, la nga xam ni tam génn na ci waxtaan bi mooy nii collectivité locales yi engagé wu nañu pour jàppale ñu. engagé wu nañu pour lëkkaloo ak comité d'organisation bi pour mobiliser seeni jeunesse parce que ñun mën nañu def li nga xam mooy tax sportif yi ak esport bi mën a dox waaye la nga xam ne mooy Sénégal tax Sénégal ak sénégalais gis ci seen bopp ñoom la ñoom la ko yàlla dénk te loolu tey ji engagé wu nañ ci ba tax na bu ñu jógee fii danaa defal benn compte rendu président moom Mamadou Diagne Ndiaye bi nga xam mooy président comité d'organisation bi pour que ci diir bu gàtt ñu orge benn ndaje ak maire yooyu xool nan la ñuy lalee programme buy door tey jëm 2026